jërë jëf mbokk yi auzubillahi mina seytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi rawatina waa kër Seexul Xadim Xadim Rasul asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa ginnaaw bi ñu santee yàlla julliwaat ci yonentam bi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam dellu si santaat bu baax sunu yaakaar teeg ëllëg di ku tedd ki di Seex Ahmad Bamba Xadim Rasul ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ci di leen jaajëfal baax a baax di jéggul ñëpp cee baal àq ñëpp cee baal àq ñëpp di jiital ci nuyoo beeg ziar bi saahibul fadila Serigne Touba Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké xalifa général kulu murit di ko ñaanal yàlla guddal fanam yokku wéram ba mbooleem ay naalam ak i sumbam mu àggale ko defe ko nu kawe njottam mbokk yi nag su gisee image yi xam ni ñoo ngi ci juróomi fan ci weeru koor juróomi fan ci weeru koor nag suñ ko tuddee xel yëpp dina dem ci suñu jàmbaar ji nga xamante ni moo di Serigne Touba Cheikh Souhaïbou Mbacké gane àdduna ci weeru koor waaye itam dellu ci boromam ci weeru koor moo tax nag tey jii ñu koy fàttaliku ndigal ak kilifteefu xalifa général kulu murit Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàlla na fi yàgg lool ci ànd ak wér jaar ci sëriñ Cheikh mi nga xam ni moom la ñuy xoolee tey jëmmi sëriñ Souhaïbou Mbacké ji ak mboolem njaboot ak sëriñ Souhaïbou Mbacké gépp waaye itam mboolem comité d'organisation bi nga xamante ni kii coordonnateur bi moo di sëriñ euh, Abo Say moom sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké euh, bu ak mbooleem ñi nga xam ñoo ne ci comité bépp sëñ Abdou Samad tam sëñ Touba Cheikh Souhaïbou Mbacké mbokk yi bi génn mbokk yi mbooleem njaboot ak sëñ Touba Xaadim Rasul gi ñi ngi àndanteeg moom di ko ziar mbooleem seex yi ñi ngi koy ziar waaye tam mbooleem jullit rawatina taalibe yi bàyyi ko ci ay gox yi ñoom itam ñi ngi ziar ki nga xam mooy sëñ Cheikh Abdou moom sëñ Touba Cheikh Souhaïbou Mbacké waaye itam su ñëwee fii nga xam ni moo di barab bi nga xam ni fi lan denc ku tedd kooku nga ni moo di sëriñ Touba Cheikh Souhaïbou Mbacké itam mbokki taalibe yi ñi ngi fi programme bi nag ren incha allah bi dañoo dindi li nga xam ni moo di cérémonie officielle bi moo ne nag du am dañ koy sensé euh, ak conférence bi nga xamante ni bii turandooy Serigne Touba Cheikh Souhaïbou Mbacké yi ñoo koy amal lu tàmbalee ci ñeenti waxtu kon moo tax nag euh, seen euh, télévision Lamp Fall waaye itam seen télévision alxadimiya seen télévision asalaamiya ñu fas yéene àndandoo yéen dugg ci kër itam leen ay reportage ci njaboot ak Serigne Touba Cheikh yi waaye itam ay témoignage ak lépp li nga xamante ni aju na ci tey ku ko déglu rek da nga am en direct di ko am ñun fii nga xamante ni mooy kër Serigne Touba Cheikh Sooy Mbacke ànd ci xalifaam di Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke moom Serigne Touba Cheikh Sooy Mbacke ak mboolem comité organisation màggal gi ba ca kanam incha allah. la

anta